il faut ñu accepter débat di am parce que réew mi dafa am lu fi am lo xamné man kenn duma ko moy su dara l'Amérique. rek ñu né ñom ñi lañu bëgg ñëpp xalaté fo jaar ñu né la ñu joxañ la né ni nga wara a ba paré def propagande médiatique bo xamné sax dañuy ragal wax ndax ku wax ñu waaw de dafa contre li wala mom dafa li mais demal France demal Angleterre demal États-Unis demal man chaque jour taal seen yi di seetaan suba ba ngoon jot ay débat la médecins yi toog débat homme politique yi toog débat ñii ne d'accord na ñii ne ma c'est ça noonu la société di doxee te ñu war a nangu it ñi war a nanguwit it nii sénégalais yi dañu am ay question ñoom ñoo war a génn tontu question yooyu sénégalais am nañ sañ-sañ am question ne ah man de ñàkk bi bëgg naa ci xam lii balaa ma ciy dugg bëgg naa ci xam lii nun du ñu ay bàyyi ma yoo xam dañ lay tàkk rek yóbbu la ne la ay wa li may wax nag li ma ci gën a bëgg leeral mooy man contre ma vaccin contre ma vaccin de bi ñu juddoo ba léegi ñoo ngi vacciné wu te vaccin yooyu amul benn bu ñu ci defaree Sénégal à ma connaissance wala docteur donc problème bi du est-ce que contre na vaccin wala contre ko gëw mooy it ni vaccin bi complot la ndax bu doon complot ñu ko defar duñ ko xëccoog ñun parce que xel day loolu lay jëriñ bu dee ñoom ñu ngi koy xëccoog ñun ba ñun mënuñoo jot ci vaccin bi ça veut que ñoom jàpp nañ ni vaccin bi lu baax la ba tax ñu koy def kon loolu dama bëgg mu leer balaa parce que sénégalais da ngay génn fii rek waaw moom nee na moom nee déedéet damay wax lu leer contre ñu principe bu vaccin àdduna dafa dox dafa et nu muy doxee dafa gaaw science dafa dox médecine bi 20 ans 25 ans 30 ans ci gannaaw ku la mënoon ku la waxoon opération éveillé nga ne xanaa kii wérul waaye tey ñu ngi koy def kon vaccin it bu dee ñu ngi ko doon defar si 15 ans 20 ans science mun na dox ba ñu defar ko ci anam bu gën a gàtt waaye bu ko génnee nag kenn ku ne balaa nga koy ñaqu am nga sañ-sañu laaj yi nga xam ne lu lënt la ci sa bopp am nga sañ-sañu laaj ñoom lii seen responsabilité mooy ñu tontu sénégalais ci laaj yooyu dalal xelu sénégalais waaye kenn amul sañ-sañu laaj ñépp nañu dem rek vacciné wu man nag bi ma ci tollee dama laaj samay laaj liggéey ak docteurs yi infectiologue yi keneen ak keneen bokk na ci laaj yi ma laaj mooy est-ce que mën nañ ma wax ñàq bi ku ko ñàqu ñaata weer la lay couvrir la lay couvrir

toogaat weer wala ñaari weer jël sa deuxième dose li ma jàpp mooy buñ ci tegee juróom benni weer wala lu teg lu ci legu tegu tuuti war ngaa dem ñaquwaat kon nañu xam ni cycle bu ubbeeku la peut-être loola tax Pfizer dugal autorisation pour troisième dose te démb si guddi lay seetaan journal gis ni Israël autorisé nañu pour ñu joxe troisième dose kon laaj yooyu am nañ sañ-sañu laaj ko parce que dañu dañu war a xam li ñuy dugg lu mu doon ak fu mu ñu jëme ñaareel bi mooy vaccin bi ku ko ñàkku ndax mën nga jëlaat virus bi léegi tontu bi ñun ñëpp am nañ ko nit dina ñàkku ñaar virus bi ñëwaat dugg ko léegi nag ñi ngi laam-laamee est-ce que su ko duggee mbir bi da da da vaccin bi da koy néewal doole ba du ko yóbbu fenn fi am déet loolu nag ay études cliniques dinañ ko prouver am mais pour le moment li leer ba leer mooy nit mun na ñàkku le vaccin bi ba taux de couverture bi nga xam dañ 60 70 95 pour vaccin bi boo le prenez, ba vous téeméer ci selon taux de couverture bi y a 80 qui cent réagir ak 20 qui cent ne réagir. waaye xanaa loolu am naa sañ-sañu laaj ko tekkiwul dama contre vaccin loolu sénégalais yi moom lañuy laaj euh, bi may daanelee mooy ndax vaccin bi day résister ci variant yu bees yi parce que gis nañu ni affaire bi dafa mel ni moom fi ne nii ñu ngi ci cinq variants yu bokkul ñaari mujje mooy delta bi ak lamda bi nga bi ñu ne moo nekk Amérique latine xamuñu ndax ndax euh, d'ici quelque temps duñu ne yeneen variant ñëw na gis nañu ay réew yo xamné ne nañu ba vacciner 80 de leur population lu melni Seychelles mu jël vaccin chinois bi mais variant indien bi mu ñëw mu ngi fay def ay ravages parce que étude bi woné na ni variant variant bi ñu am euh, euh, euh vaccin bi ñu vacciné wu variant mënul té variant euh, indien bi gis nañ ko it Afrique du Sud ñom dañu muju annuler AstraZeneca bi ne adapté wul ak variant Afrique du Sud bi kon yoyu ay question légitime la yo xamné Sénégal dañ ko wara laaj Té ñak bëgg na ñom ñu jàkkaarloog sénégalais tontu wax sénégalais lu leer ci question yi parce que ap peuple boko bëggé def lo dara da ngay dalal xelam ba tax ñun li ñu japp moy euh lool boo boko boko ko nga bolé ci ni amuñu lu doy ci vaccin

Pour dem ñu que la une mauvaise politique de vaccination parce que boo 800 000 doses da ngay vacciner 400 000 téye 400 000 pour deuxième dose donc nga dem outil parce que ça ne sert à rien nga jox nit ñi première dose une période jeex mënoo jox deuxième dose je préfère vacciner complètement 1 de ma population plutôt que de vacciner partiellement 2 de la population mais c'est élémentaire nous, est-ce y a une politique de santé dans ce pays sur 800 000 cas il n'y a que 250 000 ont jot une deuxième dose et comme la politique est désordonnée tantôt euh, Sinovac bi la tantôt AstraZeneca il y a Amatul après nous, andi la Johnson et Johnson souvent nous, avons la Pfizer donc nous avons AstraZeneca avons le deuxième rappel euh, Pfizer Voilà, docteur donc comme il y a na fi ñi ni ñu de euh, ñun ñoo toppandoo ñeneen ñi seen politique vaccinale parce que feebar bi ni mu mel ni mu présenté au fi bokkul ak ñoom waaye ñoom doole gi ñu am amuñu ko moo tax ñaar yi dinaa ko wax pass waruñoo forcer nit ñi vaccin bi waruñu forcer benn sénégalais vaccin bi nit ñi forcer vaccin bi nag ñaari anam la mun nañ ko forcer indirectement mooy li ñuy wax passe sanitaire mooy dañ naan ah ku mu neex nga vacciné ku mu neex du vacciné waaye ku vacciné wul dootoo dugg ci kaar ku vacciné wul dootoo dugg ci restaurant ku vacciné wul dootoo dugg ci euh, bureau administration ku vacciné wul dootoo dugg ci jàkka xam nga loolu mooy forcé di nga vacciné wu. ñaareel bi mooy ñu ne nag léegi si obligatoire ku vacciné wul sax dinañ la tëj kaso dinañ la condamné wala di nga fay ay amende loolu waruñu warul am Sénégal waruñu koo nangu d'ailleurs mënuñu ko ndax ku amul vaccin mënoo ko mënoo ko def kenn. ñaaral bi mooy comme vaccin bi lañ ci am dafa néew nañ ko dans un premier temps li les personnes vulnérables les personnes vulnérables mooy ñi am 65 ans jëm kaw ñooñu nañ leen vaccin en priorité ñooñu ne leen vacciné nga ne 18 ans ngay ngay ngay c'est quoi le projet finalement ndax dégg ngeen ministre de la santé keroog bi mu demee di jëli vaccin Johnson and Johnson bi nee na affaire bi dañ koy ubbi au 18 ans yow mag ñi vacciné gu loon te ñoom ñëpp wane nañ ni 99 taux de mortalité bi ci mag Ni la ñi mu mën a ci ndaw ñi li ci 99 pour cent yi mooy ñi nga xam dañoo amoon yeneen jàngoro yu métti lu mel ni diabète yooyu ñuy pikiiru wala obésité yu ëpp yi wala wala donc balaa ngay xool ndaw ñi na nga njëkk a vacciner mag ñi sécuriser leen parce que xale yi ils sont immunisés à 99 pour cent wala plus loolu xel war na ko mën a nangu lii mooy yi nga xam lu ñuy yedd nit ñi la waaye di daaneel ci insister waat une fois insister ci ndaw ñi ngir yàlla nañu takk max nañ jël les mesures barrières parce que même suñu vacciné mag ak ndaw ñi nga xam am facteur de comorbidité mooy dañu am yene yenn jàngoro suñ leen ñàkkoon ba noppi te nit ñi nekk jëluñu mesure barrière ba di dugalaat mbir mi ci ci kër yi même avec le vaccin magni, ñi mun nañ ko jëlaat te ku ci amoon yeneen jàngoro mun na la faat kon nañu gën ci